auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu ngi siyaare bu baax sëriñ sëriñ Muhammadul Muntaxaa Xaadimu Rasuul ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak ni ko noonu suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp. ni ko noonu ñu ngi siyaare sëriñ seex Jëmm Fall waaw suñu sëriñ suñu kilifa suñu yaakaar tey ak ëllëg eh, di jëwriñu maam Seeraam Fall di xalifaam nekkal ko fi di siyaar njaboot maam Seeraam Fall gépp eh, jamono nag moo am fu mu toll foo xam ne eh, ndigal li sëriñ bi wax waxtu wu nekk ndigalu sëriñ bi rek la ñuy déglu ndax ab taalibe moom amul genn bëgg lu dégg ndigal jëfe ko tey sëriñ bi lu ñu boole ak moom mooy contrat bi ñu boole ak moom ñu ñoo ko wax ñu ngi déglu say ndigal di bàyyi say tere kon nag bis bi nga xam ne eh, sëñ Modou Abdoulaye Fall yàlla na si dool ay leer da ko daan woote di ko wooteel maam bu Ndiaye bi nga xam ne mooy wéjuru maam Cheikh Ibrahima Fall mu ci daan sant maam Jaaratullaahi Mariama Buso wéjuru Xaadimu Rasuul daan ko defee fii ci tuubaa ci këram gi jantul Mahwa daan ko ànd ak njabootu maam Cheikh Ibrahima gépp daan ko ànd ak murit yëpp daan ko ànd ak mboolem jullit yi ah, bis boobu ni ni kàddu yi nga xam ne jiitu nañ ma noonu rek lañ laa ko santaane noonu laa ko diglee li sëriñ Cheikh Abdou Fall wax moom laa ko waxee ah, ndigal loolu bis bi ah, aj nan ko ba jëmmi jamono waxtu woo xamante ni bii jamono mayewaat na ak daje ah, des na ko jàpp defandoo ko kenn ku nekk nag am nga barab boo nekk waaye waxuma kenn ku ne di ko sa barab ndax loolu lañ daan def ndax sëriñ bi nekk kenn ku nekk sa barab nga ko daan defee man ban ba nekkee sama barab bee laa daan defee ci jàngal xuraan ak ak togg yaañ ak bernde kon bu kenn ku nekk beroo sa barab def ko fi day mel ni jëfewuñ ndigal li dama bëgg kenn ku nekk nga bañ a dajale mbooloo sa kër lépp ndax lépp loo xamante ni bi day indi dajale am mbooloo tax lii ragal ci àdduna bi di law di ma tàbbi ci askan wi loolu ñun kilifa diine yi ñoo ko war a njëkk a moytu ñoo ko war a njëkk a dawit ndax nit ñi sunu boroom dañoo boole ak ñoom Sëriñ Tuubaa boole ñu ak ñoom ah bu ñu boole ak ñoom Sëriñ waxoon ne ah, moom day njëriñ loo xam ne ànd ak lor ah, wallaahu yansuru nii waxal ko tat boxon yi war na fa saa dara bi dararin moom ba tey banum njëriñ loo xam ne ànd ak lor sëriñ bi du lor kenn ah segam gis nañ ne ak jóg bu amee jëm si ci jëm si ci kilifa gi dañ ciy séentu ak lor moo tax sëriñ bi dàq loolu ndax sëriñ bi bëgguta lor kenn ndax di diine sax yoon salaasan dafa wax ne ad diine laa laa dirar wala diraar bu loru waaye nag bu lore te gis nan ne li nga xam ne lu xew la wër àdduna ah ñu koy bokk di ko gisandoo ah di ci teg sunuy bët ñun ñëpp ñun ñëpp ñu nekkandoo en ligne ci actualité bi di ko gisandoo gis la xew eh, Italie ay huit cent quelques morts la xew France ay ay trois cent quelques morts la xew feneen ay cent et quelques ba ci tey ji démb rek bi ma xoolee al arab yi Arabie Saoudite gis am nañ fa 15 cas yoo xam ne ci mbir mi la kon mbir mi dafa daj àdduna kon nag liñ ciy musal nga xam ne maanaam ci kàttanu suñu borom ndax yàlla mooy aar mooy sàmm li nga xam ne suñ ko defee mujj si njaboot gi mucc si mooy ñu wax njaboot gi ñu toog seeni kër ñoom ñëpp ba jamono yi jàll bu jamono yi jàllee nag ñu jàppaat bis bi bisu ci sant la sant moom waxtu wu nekk moom euh, jaam bi ci la war a dëkk waaye nag sagam dañoo suñ daa tànn bis boo xam ne daf dajale njaboot gi dajale ci bokk yi dajale ci am di jàmm yi ngir ñu xamante ngir ñu gën a jaxasoo mu sant ci maam bu Ndiaye sant ci maam bu Bousso bis boobu daal moom ci ndigal nga xam ne bàyyi ko ci Serigne Touba mu Mountakha jaar ci maam Seeraayam Fall Serigne Cheikh jëmb ak si ci man ndigal bis boobu moom euh, dàq nañ ko ba jëmmi jamono bu ko jamono mayewaatee nag incha allah dinaa toogaat fii ànd ko yéen ñi ma ko war a àndal woote ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi li nga xam ne day day balaa di musiba yàlla na ko suñu borom jële dàq ko ba mu set sànni ko ci biir géej gi tam bañ a kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë ngeen jël